asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo tey dimanche bi nag duel de sénégalais moo amoon damay yem France ak Angleterre damay euh, tey wax match bu xamante ne match bu métti la woon match bu xamante ne euh, équipe bu Mbaye Niang lañ ko doon xaar muy Bordeaux Mbaye Niang tey tey dañ ko teg titulaire ñoon jàmmaarloo ak Metz bu ñoom Pape si sénégalais yi Pape Matar moo titulaire te donte Pape Matar Sarr tañ nañ ko nag vrai rôle am presque presque genre numéro 10 avec deux attaquants ci kaw donc voilà tey ñoo équipe bu Mbaye Niang Bordeaux moo jur 3-1 Bordeaux nag dafa soxla victoire bi tey dañuy xeexaan ñu xamante ne ñoo bokk li ñuy seet maanaam ñoom ñëpp dañoo bëgg a toog Ligue xam nañ ne moom lay xeex Bordeaux jamono bi moom lay xaar naa moo jël avantage de te instant yi nag lay fekk ñu gagné nii te week-end bi lee seen seen dafa ñàkk euh, Clermont dafa ñàkk am nañu ay poñ yu xamante ne mën na tax ñu espérer jigéen nañu instant yi barrage bi quelques points rek la euh, nekkatul lu bëri Metz ba tey sax mën na espérer mais Metz nii mentalement mën na leen rey quoi léegi nañu wax si suñu gaynde yi Pape Matar Sarr comme ni ma ko waxee teg nañu ko euh, devant Noram xam euh, ak Pazo donc presque dañ ko jox genre liberté mu mën a jouer booy xool temps yi Sénégalais yi moom moo si jouer dans un bu xamante ne voilà yow yaa war def yenn dernier passe yi avant dernier passe xam donc euh, boo xoolee ay sigam possession bi c'est pas mal mais duel gagné yi war na si a xeex di perte yenn bal yi surtout si genre match yi xamante ne physique bi bëkkante bi kii ëpp envie mooy la te Bordeaux instant yi match tey bi dañoo am envie par waa ñoo waa Metz am nañu envie mais waa Bordeaux ñoo leen ko ëpp ba pare tey dañoo dañoo waa Bordeaux temps yi match yi ñu ñu ko dugal premier mi mais en deuxième mi-temps waa waa Bordeaux waa explosé carrément équipe bu Pape Matar xam nga après après dañ dugal cinquante deuxième minute Mbaye xaw kii euh, beneen at seen beneen attaquant bi dugal mu nekk 3-1 donc suñu gaynde yi xamante ne ay Ibrahima Niang ñu ngi woon ci banc bi kii fa dugg sax deuxième mi-temps rek naan Pape Yade moo fa dugg Pape Ndiaga Yade moo fa dugg donc Ibrahima Niang mu ngi woon ci banc bi am doo lu tax doo wax si Ibrahima instant deful dara dara dara dara dara deful ay esthétique du bii du def dara équipe am dañ koy ban équipe am si suuf di xëy xam nga loolu du xaw a logique quoi il faut nga def ay prestations yu xamante war nañ ko mën a wax ne diw def na tel tel tel tel nañ ko équipe nii nii deful dara moom sax boo ko posé question naa man sama saison kontaan ma compliqué instant yi kan seetatul football bu rafet def naa instant yi nan lañ mën a amee point lañu seet nuñ ko amee baax na tey nag dóor nañ leen te ñu doon xeexal euh, seen adversaire la donc seen concurrence la donc euh, man nag leneen lu ma mën wax rek mooy Mbaye Niang dugal na bii loolu loolu man événement la Mbaye Niang normalement jamono bi moo waroon euh, mu ne ko Sénégal day métti pourtant en normal moom li mu man li mu li mu man maanaam dafa nekk njool bu technique mën na raquette mën na jouer altitude mën na décrocher mën na jouer ci côté yi xam Famara Diédhiou mënul loolu donte moom pivot la mais dafa am euh, palette bu bëri xam nga c'est noonu ay Milan ak yeneen ak yeneen dafa bëri palette mais malheureusement ren xaw ma la la fa jot ak entraîneur dem Arabie Saoudite neexu ko mu ñëw Bordeaux malheureusement Bordeaux ñoo ngi xepp bay wàcc xam donc si benn club bu compliqué mais normalement jamono yi équipe nationale du Sénégal bu fekkoon euh, waxul demi pause dara moom mooy nekk suñu attaquant parce que techniquement quand am na am na quelque chose na bagage technique bu waree raket dina raket bu waree jouer intouchable dina jouer bu waree am na frappe de balle mën na jouer ci côté yi donc kooku kooku normalement voilà donc dama koy dama koy wax bo courage rek xam nga bañ bañ a xaddi yàlla dina xëy na mu def ci jàmm ba mu ba ñu génn ci tolof tolof ñu nekk di Bordeaux ak waa Metz aussi tamit mbokk yi ne bu ñu jógee foofu dañuy dem fële ci Angleterre na bu mag ba wax si euh, beneen jongante bu xam ne ñaari génn ñoo jàmmaarloo muy Leinster bu bu bu Nampalys Mendy titulaire face à Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace titulaire mu nekk benn match boo xam ne 2-1 la match bu serré mais Nampalys Mendy même même dafa continuité xëy na match bi mu def pour man contre Munster moo gën a impressionné mais benn continuité la nekk donc euh, titulaire instant yi Brandon Rodgers moo ngi regretter carrément carrément carrément lan moo tax boole ko si seen liste euh, Liga confrance te instant dañu war a jouer jeudi bii ñoom ak PSV Eindhoven xam PSV boo fa demee euh, stade hollandais dinañ ko feesal del boo gagné demi-finale nga donc euh, match bu rëy donc euh, moo ngi ni boole ko ci liste bi ay temps yi mu ngi koy teg ligue te match yi ñu joué première ligue moo gën a tàng kanam di Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté dañoo dëgër ñoo gis liggéey bi fa Vieira andi Crystal Palace voilà même Cheikhou Kouyaté voilà dañuy gën a gis ne joué équipe bu Cheikh bu Vieira en général joué dañuy joué match yi Crystal Palace yi nga xam ne dañu gis football donc xam tey ñaari gaynde yi xeex nañ ci match bu métti ah match bi moom nekkul woon match bu yomb xam nga donc euh, deux un la pour man ñi def nañu résultat bu baax di Leicester parce que c' était pas évident ah pas évident parce que ça passe li nekk di wane saison bi c' était pas évident franchement. mbokk yi lii vidéo bi ci commentaire ku si nekk na mu a xalaatam ak gis-gisam ma di jaajëfal di wax ba beneen.